21 avril 2024 ñu doon fa bari seen digganteeg Jokal yàlla def mu xañ leen ko bii nag yaakaar na ne moom mooy septième defetu boo bu Guinée suma jumu ci carrière am gannaaw ba mu bëri ay combat yu bëri matul set man na man na set <laughs> <laughs> ñu nuyu ko bu baax moom Madji 2 Madji 1 bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet ko suivre waaw Amet gannaaw baatu onze billahi mina seytaani rajim di wax bisimilahi rahmaani rahim sante yàlla julli ci yonent bi sang-sang yi di san suñu ñaari waajur di ñaanal suñu waajuru góor fu mu tëdd ca Pikine sunu boroom xaree ko fa àjjana ak bépp waay dawdu ak hmm. bépp waa ku ñàkk waajuru góor di ñaanal suñu waajur wu jigéen yàlla suñu boroom defal ko fan wu gudd wér ak wérle ak hmm. bépp waajur yàlla defal la gudd fan wiir ak wérle di nuyu géejawaay gii ngeen ma fekk rawatina Medina Gunaas fii ma juddoo yaroo fi di leen nuyu bu baax di nuyu fii ngeen ma fekk tamit sama place rakk la amet Falaam mhm. di ko nuyu di nuyu Mout Thiam borom jàmmalaay mhm. di ko nuyu mooy borom ganaar yu baax yi jàmmalaay Mout Thiam di nuyu Babacar di nuyu Bàcc di nuyu Papa di nuyu képp koo xam ne day bëggee màjj màjj ñu nekk ci bitim réew ak ñu nekk ci biir réew mi. ok waaw di sant ñëpp di bëggee ñëpp waa. Mhm. match ji yaakaar naa ne ngeen mujj arène nationale démb muy dimanche. 21 mhm. avril 2024. ñu mhm. woote woon fa combat bu rëy nga doon bëri grand combat bi muy match 1. match 2 ak ak Jokal. Euh, boo Boy Djiné wàccaayam yaakaar naa yéen a ko ànd. di ko préparer ay mois. la nga lan ngeen mën a wax ci wàccaay bi. waaw wàccaay bi li na ci mën a wax mooy wàccaay bi def nañ wàccaay bu am solo bu jël temps. parce que waa làmb ji bi mu koy jël làmb ji mi ngi nekk làmb 4 mois. waaw 4 mois nag ku ci waaj dëgg dëgg dëgg di nga pare. Mm-hmm. mu def ci wàccaay def 2 mm, mois yoo xam ne def na ko Maroc nekk fa moom dong di liggéey bi ne koor gi des na une semaine. Mm-hmm. mu ñibbisi ñu ànd nag bi ñibbisee nag ñoo ko ànd nag durant un mois 15 jours yi. ñoo ko ànd di liggéey. Mhm. waaw ñoo koy ànd guddi gi ak bëccëg gi di ko liggéey mu nekk ay entraînement yu am solo yoo xam ne mi ngi mi ngi ko doon def. Mhm. pare daal. ok pare carrément pare. waaw. physique contact. Mhm. boxe lépp mu def ko. wax nga ko léegi da ngeen demoon Maroc. def fa ah. deux mois. Euh, yéen loo leen déggoo la wala moom xëy na moo jëloon décision bi pour génn dem réew mi wala lan la. waaw moom moo jël décision boobu. ok moo jël décision boobu ne combat bii dama cee bëgg a génn. loolu ci benn deux mois ferme yoo xam ne ni entraînement lekk tëdd entraînement lekk tëdd. waxtaan seen ñun tamit bi ma mhm. waxtaanee ci ñun tamit ñu nangul ko ko. ne ko waaw loolu moom dañ ciy d'accord ak yow parce que foofu ngay gën a mën a foofu ngay ëppee mental bu dal ko ba pare sa entraînement foofu ngay gën a yokkoo. Mhm. ci wàllu musculation ak physique li ci des boo ñëwee ñu mottali ko contact moom boo ñëwee ñu mottali ko boo contact yi un mois quinze jours. Mhm. li nga bëgg di nga ko am. mu jógee fa def fa deux mois bi mu ñëwee. Mhm. lan ngeen gis ci moom ndax gis ngeen ci moom ak yokkute. ci wàllu état waaw gis nañ ci yokkute ci wàllu état parce que gis nañ moom amatul benn graisse def na entraînement physique dur musculation tamit endurance ba nga xam ne moom yaram bi xeere na. Mhm. wow waaw deux mois yi mu dem ñun regretté wuñ ko bi mu ñëwee bu xoolee gis nañ ne résultat am na. Mhm. entraîné na. Mhm. ci deux mois yi. ok waaw def na ci entrement bu baax moom. mu ñëw defar fii un mois quinze jours. ci biir weeru koor gi tamit ma dégg la. Mhm. ngeen doon entraîné ba nga ne gis naa ci moom sax loo xam ni suma ko gis ci. Ah, ay làmbam làmbam waaw. waaw bi may jël si noonu maa la koy wax ne la détermination bi ma gis. ah. ak passion bi bëgg bi. ak entraînement bi. loo xam ne gisuma ko woon sax ci combat yi jàll moom laa gis te ba mu sumee koo démb la ma gis moom nga gis keneen moom la gis gis nañ changement ci wàllu yaramam ci entraînement waaw bu baax mm-hmm. am na ca waa mm-hmm. changement boobu moom am na ca waa Jokal kan moo leen ko jëloo yu na choisir Jokal wala lan la woon non Jokal choisiruñ ko làmb moo ko choisir làmb ko booleeg moom ñu choisir ko waxaaleek moom fay ko lu ko jaral mu jël ko loolu moo ko booleeg Jokkeel te Jokkeel mu jël ko tamit war na ko jël ndax Jokkeel. Mhm. moo ko jiit ci làmb. waaw bëreeg ay champion yu mu bëreewul. kon Jokkeel bu ko mayee chance noonu tamit bëreeg moom day nekk loo xam ne lu war la. Mhm. mais moom mënut a bañ Jokkeel. ok mënu koo bañ waaw. Euh, mu sumeeku nag démb. Mhm. kenn du ne acam parce que gis nañ état de forme. waaw bu ñu bari euh, validé. ni état de forme bu baax la ci poids boo jëndee. nee na mbooloo bu bari. Euh, ñëw na xëy na bëri na daanu mais balaa maa ñëw ci bëreeg daanu gi démb euh, seen dugg si arène nationale démb waaw. waaw ñun dugg si arène nationale ku ko gis nekk nitu làmb cafka làmb di daw. Hmm. yaram dana xam ne dugg si nan ak cosaanu làmb. Hmm. moom lañ dugg see parce que ku ko gis démb ni ràngoo maanaam solin gi nga xam ne dugg si na dugg si làmb. Hmm. ca tuus ma. lépp tamit nga xam ne ba tey mi ngi ci dugg si làmb dugg si boobu lan dugg see démb nga xam ne ah dugg si nan ak cosaan bu doy waar. Mhm. tus tus cosaan. waaw démb daal moom làmb na. te gis ngeen ci poids poids boo ji bu ñëw ci état de forme. waaw maaj maaj bu ñëw ci état de waaw. bu bu boo xam ni tey maanaam nekk na ci combat bi ndax damay dégg yenn mm-hmm. euh, euh, yenn chroniqueur yi naan des fois mbër dina ñëw sax euh, te doo xam ni ñëw na wala wala nga xam ni kii nii nekku fi loolu ndax loolu daroon na ko démb non non démb loolu dalu ko ci dugg si bi mm-hmm. dalu ko ci échauffement bi ah mm-hmm. dalu ko ci préparation loolu dalu ko si ci biir combat bi ci biir géew bi nag la ko dale loolu noonu. ah ah. ci naka la ko dale waaw ah, ci biir géew bi la ko dale mhm. ni ko dalee ci biir géew bi mooy maanaam li ma la wax nii yëpp moom. Mhm. dina ko def su ko defee di nga xam ne mbër maa ngi nii mbër mi dikk na parce que boo ko xoolee sa bopp di nga xam ne kii mbër la ndax entraîné na def na li muy def di lii mais bu desee desee desee des ba arbitre ne mhm. par ci la la mbër mi di rëcce. maanaam nekkatul daal ci jamono yooyu noonu. du nekkati. ok ci ngay xam ne nag mbër maa ngi rocceeku leneen a ngi dugg te loolu boo amee taxaw seetlu nekk nit kuy mën a seetlu. Mhm. di nga gis loolu. parce que boo xoolee papa. Mhm. ci entraînement ak ci contact boo ñëwoon fii jël ci ko interview. nga xool ko ci wàllu contact ñi muy dalante gaay mhm. di leen daan ñu koy daan muy dalante gaañ ba mu yàgg muy të sax naqaree daan di nga xam ne waaj na ci wàllu côté boobu waaw boo xoolee jokkeel démb état bi mu indi nga xam ne ak papa état bi mu indi nga xam ne ñaari état yi bokkul ñaari état yi bokkul mais daa am nag lu laxasu ci biir lu laxasu ci biir loo xam ne mhm. te yow mii di ma laa question yi soo ko jëflante woon ak papa noonu ci keroog démb ca géew ba sax mhm. yow yaay am ndaw kon lan dafa am problème bu mu am moom. ci biir géew. lu nekk loo xam ne nii dafa nekk moom ci yaramam. ok ci yaram la wala euh, euh, ñu def ci moom. walla ndax des fois nag mbër moo làmboo loolu. waaw mën na nekk lu mu def ci moom sax ndax lii moom. Mhm. nekkatul yàlla rek te yàlla tax loxo jugul ci fi mu ne. ok loxo jugul ci lii lii moom maa la koy wax loxo jugul ci. def-def moo nekk ci yaramu parce que yàlla soxoreegul noonu yàlla soxorul. Mhm. <laughs> yàlla soxorul. yàlla. Mhm. soxorul doomu aadama moo soxor mais yàlla soxorul. parce que gis naa nag des fois nag même bu mbër. Mhm. daanoo sax tegal la ñaari victoire sax tegal la ñaari défaite sax. ñett bu ñëwee dina bu ñëwee dina dama gis nag bu tegalee ñett défaite. mais tegale tegale tegale waaw waaw ak défaite yi ni muy amee. waaw. taxaw seetlu xool défaite yi ni muy amee. ñi la daan yaa leen mën ñi daan la yow yaa leen mën ñi daan la mm-hmm, mm-hmm. ndax yaay def différence bii jeexal bëre mais yow yaay daanu <laughs> kon nga xam ne lii jéggi na sport nekkatul léegi sport kase parce que sport boo tàggatee lenn ba mën ko ay def ni boo ñëwee da nga war a prouver kon nga mm-hmm. xam ne nekkatul sport kase am na lu rax ci biir mais loolu mu wax la ko nii am na dafa am lu nekk sama yaram lan la wala toog wala toog ngeen gis ko ci moom. Euh, ngeen ngeen ngeen waxtaanee ko ni papa mii daal dëgg-dëgg daal am na luñ ko def ndax loolu ndax loolu yéen. waxtaan ngeen ci yàlla yàlla xam ne ku dee sa bàmmeel. Mhm. moom waxuma waaye man déggante naa moom téléphone wan ne ko yow li nekk sa yaram sax maa la ko gën a xam. wallaay Agir loolu kañ la tey démb. non non avant combat bi. ok ci préparation ci biir combat bi. fekk li tax ñuy ma wax ko loolu. ni ci doon discuter mooy. maanaam man li ma ay nit yu baax wax. Mhm. ay kilifa. Mhm. ne ma sa turandoo bii am na loo xam ne nekk na ci yaram waxuma la ay ay làmb mais moom warugul sax bëre daa wari dindi loolu ba pare soog a wax waxi bëre mais su dindiwul loolu ku ko ñaanal sax di nga nga baal ma ci kàddu gi ku ko ñaanal sax dinga nga di nga di nga wax lu amul. ok man ay kilifa wax nan ma lool. ne ma li nekk ci yaramam di nga aay de di nga aay yow boo ko doon di nga nekk ku aay mën a ñaan mais moom boo ko ñaanalee yow da ngay da ngay juub ndax du moom loolu lu nekk ci yaram bi la. ok man waxtaan naa naa seeg moom wax ko téléphone sax waaye moom am na gëm-gëm goo xam ne yaqiin goo xam ne nii moom jàpp na dara nekkul ci moom moom jàpp na ne dara newul ci yaramam bi. te mhm, mhm. moom daa am lu ne ci yaram bi. moom daa am lu ne ci yaram bi. mais moom jàpp ko mënu ko gis moom tey boo nekk bunt bii fii ngay jaar génn nii danaa la noo fii di bunt fee fee la ni jaar parce que lim àndal mooy mooy mooy def loolu am na yoo xam bu nekkee ci yow mhm. maanaam doo gis doo ngay gëmbataxlu doo gëm dara da nga naan noo lii amul ni mais firndeel na démb nag loolu am na ku gis daanu yi muy daanu nga xam ne loolu am na nekkatul nag léegi lamb mooy benn côté bi dafa am problème quoi tànk beeg yooyu des fois na am na nu ko mbëri téye rek da koy daan facilement moo dóor Jokal arrêt de gauche bu dal waaw si ko doxaat ci kawam di dox ci kawam ba Jokal kaw waaw Jokal kaaw na mu ñëw di ko dogali si Jokal moom mu jàpp tànk yi plaqué ko waaw non tànk yi ko nii rek mu tëdd jokkeel moom daa sukk daan fa waaw ba pare ci kaaw la ko daane ah. waaw moom mi ngi kaaw. léegi mu war na ne yow kii nag yaa quelque chose papa la mu liggéey tànk yi assise mhm. man jokkeel barki yonent yàlla ma xam maa ko ëpp doole mille fois su ma nee dagaj papa kànkam yooyu du ma ko daan mhm. génnee la may def def nee du ma ko daan ci tànk yooyu ndax coono yim ci daj mais nga xam ne nag léegi lii moom nekkatul neen ko nekkatul neen mhm. doomu aadama yi quoi yomal xiyaam dina ñëw de. waaw. Amet. Mhm. gis nga ko dul fàttaliku guddi gu njëkk ci bàmmeel yaa ngi réer ay mbir. Mhm. Mhm. guddi gu njëkk ci bàmmeel daa jara sóoraale. te àdduna du kër. dañ fee ñëw nii rek àdduna du kër. te nag nit ku nekk war ngaa xool sa ëllëg. ëllëg yomal xiyaam war nga koo xool. parce que ñun Sénégal dong ngay gis ñu ne ñun ay jullit lañ. billaahi seede yàlla nodd bi amet yor microom di liggéey ci ay lii nga ne lu tax lu tax amet di yor micro di def lii ak lii amet sol yére bi ne nga ne amet ñoo toogandoo fii amet di sol yére bii itam li na illie nga jël xaas boobu jéem jënd yére boobu toog amet di nga naan noon naa jël ko dem def ko ci sëriñ ba amet doo amati sax jot bu mu amatee ay jënd yére ay nii na bu mu ko tal na wopp loolu Sénégal fii rek la amee buñ jógee ñu ne ñun ay jullit lañ. Mhm. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi fekk déedéet ak nit mën la tooñ nga mer sax war a xam yow mer gi nga mer am na yow ku tax nga. Mhm. nga am xol boobu mu yàlla suñu borom. Mhm. nga xam ne ñun dañ koy tooñ sax. mu jéggal jéggal. yow nga nekk doomu aadama ñu ne dañ lay tooñ nga ne doo jéggale su ma meree damay def lu ma ne lu ma bëgg a def. seetoo ci yàlla suñu borom mi la sàkk. Mhm. papa bu dee moom nit da koo tooñ sax or avant làmb mu tooñ ko def ko loo xam ne ni métti na loolu jarul tamit ngay def nit ki doom doomu aadama boo xam ne li nekk ci ginnaawam dafa yaatu nga bëgg ko gàllankoor ba moom du mënati liggéey sax pour dundal ay mhm. njabootam mhm. loolu dafa metti ku ko xool sa bopp rek xam ne papa li ko dal nii dafa metti waaw démb ku gis estade bi rapporteur. Mhm. tëggkat. Mhm. caméraman ah. Mhm. ñëpp. Papa amoon na yéene ci moom waaw. moom lañ bëggoon mu daan am ci yéene jokkeel ñoo dugg si noo bi ñuy dugg si la jokkeel di egg si benn berningoo la yéeg cinq personnes yooyu ñoo ko topp set yéen ko jox pour sponsor sax moom moo ko gàddu nii dugal ak moom ci biir indiwul kenn. kii ñëw tey def indi mbooloo mu bari ñëpp faral ko stade bi. lu amul seede baaxul bi mu daanoo stade bi daa mel na lu màbb ñëpp ne tekk kenn yëngootu nga xam ne ñëpp yéene woon nañ ko. Mhm. mais jël doomu aadama def ci moom loo xam ne da ngay toog fi mu toog ne noo na ma ñëw baalu wala noo def nii wala suma liiwul dootul amati ndam ay nii loolu tamit. duñ ko sóoraale ngir ëllëg. Mhm, mhm, mhm. jar na sóoraale ñun lii ñuy kër kër lii yëpp mbiru àdduna la. mbiru àdduna la mbiru àdduna kase la ñuy kër di tëf di nii. mais ngir yombal xiyaam mu ëpp solo fuuf. liggéeyal foofu loo xam da ko fay fekk. ko fekk. mu ëpp solo. nan tàppe xol yi bàyyi yàqante beeg dexe. lu ñaaw waxante lu ñaaw te xam na fii loolu xaju fi. nit ku nekk. sa wërsëg yàlla suñu borom dina la ko jox. dëgg yàlla noppi na bu yàgg. noppi na bu yàgg nañ a xam loolu. Mhm. parce que man démb yàlla xam na ne damaa tuur sax xéewal. ndeysaan. Mhm. ndax déception bi ma am. déception bi ma am démb. Mhm. ku ne ma woon démb papa daan dama naan noonu. ñu ngi ñaan nag képp koo xam ne moom du fekkee daf laa tooñ te yëg na ko wala yëgu ko nga def appel boo ko mënta jot keneen yóbbante koo xam ne ñun dinañ ñëw ba ci yow jéggalu la. jéggalu la. waaw jégalu la loolu mooy solution bi quoi. loolu man solution boobu dong laay. ok koo xam dañ ko tooñ ba mu xam ne moom da ko tooñ moom suwaat mu yëg ko wala yëgu ko xolam mi ngi tàng ci yow. Mm-hmm. nga signalé ñi ñëw jégalu la. parce que lii tamit il faut arrêter lii daa war a. waaw métti naa dafa dafa war a jeex de. mais damay dégg ñu naan lu loxo dindi loxo lu def man loxo mën na koo dindi ah. waaw mais def. def dafa métti. def def bu bu bu sax def nii. Mhm. dafa metti pour dindi ko. Mhm. day metti parce que olof nee na yàq gën a gaaw defar. yàq gën a gaaw yàq. Mhm. moo gën a gaaw defar. dëgg la. tey boo yàq nii. kër mën nga ko di fondement di tabax di dagg-daggee di tabax di tabax tabax ba mën na dem. juróomi at wala mu dem fukki at. dëgg la mais boo ko doon yàq trente minutes wala une heure kër gi mel na mburaake. <laughs> gis nga misaal boo dëgg la day yàq bi tey tabax bi mën na dem di dix dix ans mhm. mais yàq bi une heure temps du ko paase mhm. foofu la demee nekkee nag mhm. moom li nekk ci moom ni yàq-yàq bi moo gën a saf fuuf moom defar gi ni waaj a defar ci moom ok ok parce que yàq-yàq gu saf moo waral li moo waral bu duggee ci biir papa bu arbi ne pire mu ne ku tàggali ko yaramam wala sagoom li ko dal dama koo xam man daloon na ma mbapat barki yonent yàlla Muhammad daloon na ma mbapat mhm. boo xam ne su ma damay entraîné boo ma indiloon Tyson wala Balla Gaye ma jàpp ko daan ko ci ay contact ni mais su ma duggee ci biir géew bi du ma téye ok samay loxo nii du téye mais yàlla boole maak tamit kilifa gu mag mu jaayante ko man dimbali bi may jaayante lool di ko dindi mhm. junni junni junni laa fay junni junni mooy cinq mille mille francs ok te sama alal laa jaay sama portable loo jamono yi ma leer ni yàgg na. Mhm. maa ngi yoroon portable boo xam ne marque bi Sony Ericsson la. moom laa jaayante. Mhm. dindi loolu jafe-jafe yooyu. moo daan xëy atelier du ma mën a liggéey ministre la taabal laay tëdd dina la sama loxo yi moo dul woon mën a téye. ndeysaan moo tax ma xam ne yërëm kii xam li ko dal xam naa ko. li ko dal dafa metti mhm. bu duggee ci biir géew du bokkati jafe-jafe boobu moo ko dal. du bokkati day absent. soo xoolee première round bi mu defee nii jokkeel lii mu arrière nii gisoo bi mu jàppante. dafa mel na kuy nelaw ci kawam du mën a def benn action. te loolu la gën a mën a ci biir bëre jàpp ni jorgandong yow def rotation wër la ndomb. mais xel mi dina ko bëgg. Mhm. mais jëmm ji du ko def. du ko def. parce que jëmm ji dikkul. Mhm. jëmm ji moo dul dikk. te loolu dafa metti waaw ba combat li ciy financé. Mhm. dafa bari dem Maroc paasal sa bopp jël hôtel. Mhm. di entraîner ñëw budget boobu ñëwaat ci làmb jënd ay bloc promoteur ba démb papa tax mu kontaan. Mhm. dix bloc la jënd duy stade bi noonu. Mhm. jokkal benn bloc jaay ko moom waxal na ko boppam moom am na ay jafe-jafe def nii. dégg maa ngi gis si interview yi mu ne moom kër yi kër yim jàkkaarloo sax ba muy bari dan ne dana mel ne yëg na bëriwul sarax daa am problème ku ko jox kenn topp ko. ok. xëy na moom démb la yàlla war ne moom nattoom day deñ. Mhm. démb la yàlla wax nattoom day deñ ñun moom sunu natt xëy na dina deñ di ñaan yàlla yàlla wane na góor yàlla góor yàlla dëgg dëgg dëgg. Mhm. bu mën a dindi lii. incha allah parce que góor yàlla koy dindi. lan nga koy conseillé lan nga koy gën a euh, doolee ñaax. li ma koy conseillé mooy. Mhm. mu génn. bu fekkee moom mënta fàttaliku moom li mu def wala lu mu luñ ko wax wala lii. Mhm. mu génn caméra yi tàkk mu ñaan yàlla ci ko def lii te moom xamu ko. Mhm. mu wax ko fu mu nekk mu ñëw jéggalu ko. ok. mu ñëw jéggalu ko mu jéggal ko lii dañ ci yaram bi parce que bu dul bëree sax lii bu la toppee nii après yow mooy loolu mën na yàq su ah, avenir. ok donc bu dul bëree sax bëree bii sax nii ay affaire plaisir la nii rek. Mhm. mais après sa santé ëllëg. sa santé ëllëg quoi ngay bëgg a def leen doo ko mën néew lii soo demee nekk mag dalay sonal. mais ndax bëre bi mënu koo bàyyi. non di ma ko non bëre bi du ma ko digal bàyyi parce que mi ngi mel ne ma ne la. Mhm. amet est-ce que doo bàyyi métier journaliste bi te yàlla dogal ma mën nga cee tedd wala am ci loo xam ne amour boo xam ne sa xol. Mhm. ma nekkuma ca ma la koy arrêté lool loolu duma ko digal nit. li may digal nit mooy est-ce que doo def estambaay by toog ay at. xaar waaw. bu jaree benn at wala ñaari at. yoo xam ne da koy toog fi mu ne promoteur bu ko wax ay combat na ko baax na nee na ko baax na. ne ci defaru parce que taal bu tëw a tàq dañ koy uppee nu ne gis nañ fi ay mbër yoo xam ne ñoo ko gënoon metti fu ëpp ko ay defet am ñoo xam ne dañoo am ay defet dem tukki nekk fa ay ñaari at ñetti at sax dikkaat ba neen na lay mën ngeen a baaxaate wala acca doxal leen ñu doxal di am ay ndam fi mu na toll na noonu moom toll na foofu moom foo xam ne moom far force dañuy wi ñaare loxoom ne ko doo fi bëriwaat bu fekkee cër bi mu na jox am nañ ko ci moom ñun loolu lañ koy wax far force doo bëriwaat da ngay dindi li nekk sa yaram ba pare. nga soo ko bëri. ok waaw man loolu laa koy conseillé te man ci tànk yooyu laa nekk dinaa ànd man tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba fu ma xam nit ku baax koo xam ne. Mhm. mën na ko dindi loolu. mu ñu ànd ca. mu dindi ko dindi loolu. incha allah parce que fi mu ne ci wàllu dindi rek lan toll. Oh, tollu duñ ci wàllu ay ay ay ay ay lii wàllu dindi rek. Mhm. lan toll danoo war a dindi. xale bi mu nekk nii képp koo xam tamit mi ngi may seetaan. Mhm. en tant que man turandoom magam. képp koo xam ne mi may seetaan am na yéena goo xam ne nii am yaqiin goo xam ne mën na dindi li ci moom mu dimbali nu te yàlla tax. Mhm. Oh, nan de. Mhm. son nan de parce que lii wuurul. wuurul mën nga cee dem am déception boo xam ne sax nit mën na fa jaaree ñàkk ba kanam. parce que am na xeetu deception yoo xam ne nit mën na cee dee. démbul ku amoon jaago wala nii mën ngaa yam ci stade parce que xeet tas yaakaar boobu dafa ëpp. Mhm. mun nga yem ci stade bi. Mhm. di ñaan nag kilifa diine kilifa aada goo xam ne nii yaa ngi dégg man Madji maj numéro un. Mhm. sama annonce bi nga jéem a contacté ma foo nekk ñu fekk la fa ñu dindil lu jafe-jafe yi. incha waaw maa ngi bëgg ceew lan ngay yaakaar naa jëm nga ci komba euh, journée Ouzin production. waaw yaa ngi sa digganteeg macha allah lan ngay. wax ci boobule combat ñu tëjee foofu. waaw combat boobu moom. tey la 22. waaw le bii di ñëw la. ok kon un mois moo ci des net moo ci des. Mhm. sama digganteeg. macha allah booy boobu macha allah. waaw waaw allah. sama mhm. digganteeg moo di waaj. Mhm. di ñaan tàllal la ko ñëpp. ñaanal ma ma ñëw sama retour. maag macha allah yàlla sunu borom mi am ndam yàlla defal ma ndam. di ci woo ñëpp nag képp koo xam ne mi ngi bëggee màjji màjji numéro un. maa ngi la ci woo boo déggee annonce bi nga xam ne loolu mooy sa woote. Mhm. maa ngi la ci woo nga ñëw jàpp ci combat bi dooleel ma. Mhm. ba le de incha allah ñu am ndam ci kaw macha allah. incha allah parce que man maa ngi ci wàccaa gi maa ngi ci kaw. incha ndax diiran yi mu ànd ak yi yëpp préparation mhm. suba ci talaata ji mën naa bëreeg macha suba ci talaata ji mën naa bëreeg macha am na solo bëgg naa teew lan ngay tàggatoo waaw tàggatoo bi mooy di tàggatoo boo xam ne du tàggatoo bàyyi di la sant di la gërëm di bëggee di gërëm képp koo xam ne mhm. mi ngi jàpp ci màjji màjji di ci sonn moo xam ku ma xam ak ku ma xamul képp koo xam mi ngi bëggee màjji màjji rek maa ngi lay sant di la gërëm di la wan ne jàppal seen doom seen rakk seen jarbaat seen xarit am na combat muy màjji mhm. màjji numéro un le 22 mais grand combat maag macha allah. Mhm. di sant fii nga ma fekk muy suma rakk jee Amet Folaam yéen a bokk tur. ndeysaan mooy Amet Folaam waaw. Mhm, mhm. moom moom place bii nga ma fekk man filaay toog fi laay doxtaanee ni su ma jugee entraînement fi laay récupérer mooy jaay yi yanj yi abiyaas yeeg yooyu yëpp ak lii di gërëm mut caam suma rakk suma xarit moom tamit moo yar beneen place bee di jàmmalaay ñu tuddee ko jàmmalaay di jaay ay ganaar ak ay ndawal yëpp. Mhm. di ko jaay mucc am. Mhm. di gërëm tamit. bitoo sax di wax ay nii mais geste bi mu def rek man ci laa ko jàppee mu yëg-yëg gi ma yëg rek bëgg. Mhm. mais du xaalis du man sax du ma <laughs> di ñaan nit wala ay nii mais bëgg. ak yëg-yëg ci laa ko jàppee. dëgg la muy pàpp njaay waaw ñu koo xam ci pap yow. Uh-huh. bis bi sa bis la. incha allah. gars yi. rendez-vous baa ngi noonu yéen ñëpp. na ngeen si jàpp seen doom seen xarit Madji Madji numéro un uh-huh. am na combat le 22 ngeen jàpp ci yéen bu baax waaw di gërëm gaa yëpp waa Géeja waaye Gunaas ñëpp jaajëf di la gërëm yoo tamit Ahmed waaw waaw yow vraiment ku baax nga jaajëf baax nga uh-huh. saay bu làmb tasee uh-huh. di nga ñëw ci altine ga ne ma nun làmb ja demee nan mooy sax xalaat ni yegg naa loolu tamit yëg-yëg moo koy def parce que mbëri bëri nañ fi gars yi bëri nañ fi mais da ne noo bu altine jotee naa xool Madji ñu waxtaanee làmb ji ni mhm. di la ñaanal réussite totale. Mhm. ba nga dem kon ni ma la doon ñaanal am sa yëfu bopp. incha allah. yàlla mën na ko yàlla sunu borom defal defal la sa yëfu bopp. incha yàgg sa caméraman bi. jaajëf di kontaan ci